asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal euh, maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam euh, jógoon rekk pour def benn vidéo bu gàtt ci li nga xam ni moo fi xew xew tey muy defetu équipe nationale bu senegal euh, may wax xale yi balaa dara di door félicitation gàcce ngaalaama ay jàmbaar ngeen seddal ngeen suñu xol Coupe d'Afrique ba ñu demoon réew yi gën a xarañ ci football tase fa woon di jongante mu dem ba des dong ñaari réew Sénégal bokk ci kon équipe nationale du Sénégal tey yëkkatiwaat nañu raaya Sénégal équipe nationale euh, bu football bu Sénégal jëmmalaat nañu tey réew mi nga xam ni mooy réewu Sénégal yóbbu ko ci beneen dayo ci wàllu football kon du ñu am lu dul wax leen félicitations et vous vous êtes battus vous n'avez pas démérité football nii la day am ku gañe am ku perte waaye tey képp kuy senegale fier na ci li ngeen def ci Caire ñetti fan yii ci ginnaaw senegal foo romb ñi ngi peinture ñi ngi sol maillot ñi ngi jaay drapeau fête boobu nañ ko continuer parce que football feet la football sport la football luy rataxal diggante ay nit la ay réew te ci football boobu tey munoo tudd réew Afrique te tuddoo Sénégal li ko waral mooy jom fulla fayda ak bi nga xam ni xale yi moom la ñu wone ci Coupe d'Afrique bi ak balaa loolu équipe fédérale bi maa ngi leen di féliciter l'encadrement technique maa ngi leen di féliciter et mention spéciale à Aliou Cissé euh, may wax nag équipe juddu na waaye équipe boobu bu ñu buggee muy ndil ñu ay ndam yu mag ëllëg sénégalais bu nekk na nga doon feetoo ba avant finale bi nañ ko yeggali dem teertu xale yi wan leen ni réew mi kontaan nañ ci ñoom wan leen ni yëkkati nañu raaya senegal wan leen ni senegal amati na ndam ngir ay doomam doom yooyu nag ñun ñëpp nañu ànd dem ay rapport teertu leen may wax suñu kilifa yi nañu bàyyi avion équipe nationale wàcc aéroport Dakar Yoff ndax bu fa wàccee ndakaaru yëpp dinañ dem teertu leen et yaakaar naa ni xale yi mérité na ñu lu loolu ku nekk jencal sa drapo ku nekk jencal sa mayo ku nekk bàyyil say garab na ko peinturoon na ko bale ba mu gën a set ñu teertu xale yi ñun ñëpp yóbbu leen place de l'obélisque njum selebre ak ñoom li nga xam ni mooy final bi nga xam ni yóbbu nañ ñu fa jërë ngeen jëf